kuy màggal borom tayif ahmaduna rahmatuna ameduna nixmatuna mbake yaay faraxtuna wa seexuna sawaay du ñeewaay keneen sawaay du xatti jam feneen su legam seexuna borom badar sawaay du ñeewaay keneen mboolem mi na seen loxo ñu màggal seen seexuna sant nag mbooloo mi yëpp bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen mag ndaw ñi fi na ñëpp ku ci ne mën na maa jaar sew tur ni diw nangam diw nangam diw nangam waaye nag jamono ji xat na te fi mu nekk nii waxtu wi jot na te itte yi bari na kon noo leen sant rek sant rek la sant nag am na fu mu tàmbalee waaye amul fenn fu mu yem ndax lii ngeen def euh, sëñ bi bëgg na ci nun ñi nga xam ne noo juddoo ba dara yaroo fi bëgg nañ ci sunu xol sedd na ci guy ndax ni ngeen jàppee sëñ bi ak ni ngeen ko fi ngeen ko teg xam na ko ku ko xam la ndax sëñ bi dara ump mi ngi nii toog waaye xam na ko bu baax fu mu toll mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi di ñaanal loolu na ngeen ko bàyyi xel kenn ku ci nekk boo xëyee na nga ne amin sëñ baa ngi leen di ñaanal bu baax mi di ñaanal kem kàttanam ndax mel na ni yéen yéen a ngeen ko jàmm def ngeen ko sëriñ def ngeen ko dëkkandoo lépp lu mu nekk ngeen ànd koog moom te loolu mënu su ko weesu fu nekk waaye jóge na fa kenn ku ne bi nga ñëw fii coono nga àndal ñëw yëkkati nag sa alal joxe loolu nag mënu su ko weesu bu la mbir ñor doo def loolu ku mbir ñor rek mooy def loolu kon sëñ bi sant na leen góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñëpp sëriñ baa ngi leen di sant. leneen loolu loolu day tedd nañu raxas xol yi ba mu set ñu gën a góorgóorlu jàppante bëggante te yàlla tax sunu waaw xam ne li ñu am yombut. comme ni ko kii waxee rek nanu ñaanal ci yàlla sunu borom mi nga xamante ni moo mën a tënk seytaane mu tënkal nu seytaane ba seytaane ba am ci sunu mbir mi yor gone yëpp benn lañ xamante woon chaque jour dañuy jokkoo di yëgante te yëgante gi ñu yëgante xam nañ ni noonu sëñ bi chaque jour noonu lay gis ku sëñ moom fi mu nu féete noonu xam nañ ko ndax man ak saa morom laa ceemante ni ma jàppee ne la jàppee sa morom ñëpp la gëm ñëpp la bëgg ñëpp la def ci xolam ku mu gis ku gisul xam na ne ci ay ay yitte jamono la jàpp waaye xam na ne bu sañoon ñëpp mi ngi leen di teg bët loolu moom koo waxal ci sëñ Seexuna naa la sëñ naa de ni ma def ni la def ñëpp ñëpp lu ubbil buntam tëjuwul kenn xeebul kenn ay soxlaam kon nag ñun dañuy waxee fi nga xamante ni sii mooy dajale gënu fi dajale sëñ bi dafa fees ay xolli nit ñu baree baree bari ndax fam tàmbale ba yegg si fii nag dañ lay ñaanal yàlla sunu borom guddal sa fan wi wéral say cër yokk sa wërsëg njab noonu la ko njabootu dañuy ba nga gi di ñaanale noonu lañ bëgg nga di leen ko ñaanal ndax yow ñooy sam tuur yoway sunum tuur loonu ñaanal mu dal lu nu ñaanal mu dal la kon sëñ bi man damay wax ne sa yéeney maam yi nga xamee ne bii ñoom nga toogal fii ak sa seen i yéene wajur wa ak sa yéeney bopp yàlla nga ko boole àggale te lépp ànd ak ngërëmal sëriñ bi ndax loolu rek ngeen di sàkku loolu la ñuy sàkku ci yéen it suñu yàlla dafa leen ko ndax su ngeen ñu am ko kon yàlla nañ ko yàlla defee la noonu te mu fekkee lépp tal ko waaye mbooloo mii ci wax ñoom ñi nga xamee ni bii damaa nekkan ci seen biir doonte maanaam mee gan mën nga koo tee waaye mënoo koo tee xam gis naa ñu doxalin doxalin woo xamee ni bii doxinu mënu dëgg dëgg dëgg mënu ko weesu sëriñ bi nuyoo wan nañ ko lii daaw te tey jii sunu lim ba àggul ca loola te mu sori ko lool ñu wëlbati ko jaayante fee ñu toogoon ba lim booba dem ba duwal boobee kon loolu jëfinu murit la te xaajalu ko woon kon doomu aadama danoo wax ne ku la raw ci pas-pas la la rawe fu waay àgg ci àdduna pas-pas moo la fa rawale gis nga fi mu ne dem ci sëriñ naan ko ñaanal maag yépp am na njolo waaye soo nekkee ci li nga war a nekk te nu wóor na wóor yàlla am nga pas-pas foo bëgg a àgg dan fàgg barke sëñ liggéeyub sëriñ bi la te leen du jo des ginnaaw lépp la sëriñ bi ñaanoon ba nungu ko suñ borom nungul ko ko kon yërmande yi sëriñ boobee mooy daw ci nun kon ñun ñëpp fu mën a nekk nga bokk ci badar moo xam ngay dañu bang moo xam ngay mayib lenn rekk moo la mën a sàmm aar la nekk la say maam nekkoon nga nekk ca wax nañ ni sëñ mayib bi ak nekkam fii ci badar gii kundung kundung dong musaanaam ci biir këram ñamoo war a koy maye wax na ni ci badar gii di ak nekkam mag moo xam ne mosoo julli si ñetti fan di ko génn abal ko dëkkam kon ñun fu mën a nekk ak mbooloo mi nu mu mën a toll lii ñu wax muy pas-pas lu ngeen war a am la waru leen ko caaxaane kon yéen ñu sant caam ñëpp ñu ngi leen nuyu nuyu boobu nag bu ñu ko jëlee ñu teg ko sëñ Mor Asta nga xam ne mooy seen mag comme nekk fi nañu jël ko teg ko ci loxo bagal bii mu jot leen ko yéen ñëpp ñu sant ñun tam nuyoo bi teg nañ ko ci taala say rakk ak say mag ak say bàjjan suñu pàñ ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant yéen ñëpp ak cant nag rombul ay mbir ay ah, mbooloo ñëw dajaloo tàmbali mbir nga taxaw ni leen góor góorgóorlu leen ca ndax ngeen am ca ndam ñoom tam ñu ciy góor di wane seen bopp ne lii kat suñu yëfi boppa ndax dëkk bii day ñaar ñi fi nekkoon caam ak géey bi nee ba dëkk bi ñëpp toxu tamit kër dañu ba nga musul toxu ndax Omar Caam a ngi fi kër sëñ may musul toxu ndax sëñ sëñ sëñ a ngi fi leneen lu ci nag wàllu yaan la woon alhamdulilah rabbil alamin ban ko xamee ba suñu borom def ñun ñii di njabootu El Hadj Serigne Gueye ñëwaat suñu caat suñuy kër suñuy rakka suñuy suñuy mbokk ñëw suñu caat seeni kër ñoom itam kenn ku ne defar sa kër ndax man mii kat lii ngeen di wax de loolu dong laa def wax sama bopp ni man may diw di jaamu bu yàlla samay mbokk topp sama ginnaaw yéen ñii tam ngeen woote bëgg seenu kër defar ko seeni mbokk topp seen ginnaaw loolu moo waral bis bi mel ni mu mel li ngeen wax tam mooy lu nekk ndax njabar gu nekk am na ci ñoo xam ne Serigne Touba ci moom lañu féetaloon am na ñoo xam ne alxaaji Malick lañ féetaloon suñ mbokk yi nga xam ne alxaaji Malick lañ féetaloon bi demee ba ma xamal leen Badar mooy seen dëkkub maam dañoo mel ni ñoom gëmewuñ kon tam yéen la dal mooy loolu rek seen mbokk yi nga xam ne ñoo nekkoon Kaolack riir fu ñu jóge woon ci àdduna ngeen dem ba wax bi ngeen jóge woon di fële la nekk ñoom kon ànd bi war naa mën a rafet war naa mën a yomb ndax ñoom dañoo bëggoon barab bu ñuy dellu am ngeen mbooloo moo xam ne wax ngeen leen barab ba ngeen dellukat moo ngi dale ñoo ko moom ndax sunu maam moom ko fàkkal man mii tam laa def ak samay mbokk sunu borom nu ci ba am na ñoo xam dañuy toog ba ñu ne lii de ba alal sëriñ di bëgg de kenn xamuloon kañ la waaye sunu borom mosu leen dimbali ba ñëw fi kon yàlla mi nga xam ne mooy defar mbir amul asar lu nekk rek dafa waxtu woo xam ne moom lay xaar bis bu jotee kenn mënu ci dara bis bu jotee koo nar a fànq da nga fa dul nekkati ngir loolu mën a am. kon ñu doyloo ko te wóolu ko te dénk ko suñ bopp ci mbooloo mi ñu yor borom xam-xam dafa waxoon nag mbooloo moom ñett rek la am na ñoo xam ne am na ñoom xel dañuy sos te lu ñu sos mu jëm ca kanam am na ñoo xam ne amuñu xel waaye bëgg nañ lu baax ku sos lu baax boo leen ñu bokk ca am na ñoo xam ne mbooloo mun dégg di leen ca bokk bis buñ ca bokkee ba gis ne moom mbooloo yee yam rek ñu génn wutaat ma leen mbooloo ndax loolu mooy seenu mbir am na ñoo xam ne duñ ko def waaye mbooloo mun dugg dañuy def mooy fexe ba mu nekk ñetti kuréel bu kuréel yëpp tasaaroo ñoom ñu génn dem seen wutiwaat ma neen mbooloo mu dajaloo nekk benn kooku nag kenn dong la muy seytaane kon nag da ngeen fexe ba seytaane bu mu dugg seen biir ndax nit ñoo xam dañ naan liñ bokk mënuñu koo tàqale muy menn maam di caam ji foo ko tudd ñu la caam ji mooy sama mooy sama maam nga sant jong ñu la caamala meññ ba ngeen dem ba ñu sant jum sax ngeen meññ leen ci biir caam jooju yi kon yaakaar naa seen ànd war naa a rafet ginnaaw loolu wéy nag ñu leen yëgal leen dëkk bii moom ñoo ko bokk man ak yéen kenn ci yéen defuma ko taalibe ab dëkkandoo laa ko def kenn ci yéen defuma ko taalibe sama xarit laa ko def boo xam ne bu ma jege la ba lu ma lor lu ma nar lor ba naroon ñëw ci man bu ko yëgee dina ko lijjanti noonu laa leen jàppe jàppe ma leen taalibe ndax ñun dong Serigne Touba dong lan Serigne Touba moo ñu defal lépp lu ñam lu sunuy maam am lu sunuy maam am Serigne lañ ko jëlee wax nga ko léegi. bu doon diine lislaam dong la suñu maam ñoo ngi ci woon ndax dëkk yi sëñ bi sanc yëpp diine tax mu sanc ko waaye bi sëriñ bi feeñee de njabootam gépp dañoo dem sëy sëriñ Touba teraanga joojee nag moo ñu may lii ñu am ba tey ndax sëñ bi am na ñu mu ko àndoon di ay rakkam kenn déggutu leen kenn xamatu leen kon nga xam ne sëriñ bi lépp lu mu laal mooy ab làmp bu leer ba faw te kenn mënatu koo fay lépp lu sëriñ Touba defar kenn mënu koo dindi yàq da ci dul àgg la muy def nag mooy ña ko moom bu ñu ko sàgganee mu téye ko te xaar koo xam ne am am na fulla am fayda te bëgg naa defar bis bu ñëwee mën ko tegg ci loxob kooka ba buy dox di dem lépp léppam day woyof te kenn du ca man dara xol bu rafet rek moo ci mën a ànd boobaa di nga di nga di nga di nga di nga saw fan dina ci gudd bis bu la jox xol bu naqare dalee nag da ngay gis mbir moom muy dox di jëm ci kanam te doo ca mën dara te naqaru bare day indi tawat ci nit ki tawat jooju nag kenn du ko faj alhamdulilahi rabbil alamina bi ñu yàlla dimbalee alhamdulilahi rabbil alamina bi ñu yàlla boolee alhamdulilahi rabbil alamin bi nu suñu borom wanee kon ñu xoolante ci bët kenn ku nekk xool moromam xam ni kii kat li ma bokk ak moom kenn mënu ma koo tàqaleel man mii de man li ma bokk ak yéen kenn mënuñu ko tàqaleel fu ma nekk di bon ngeen gis ni kee kat doomi badar la da ngeen ci dul man dara waaye du leen neex fu ma nekk di baax ngeen gis ni kee doomi badar la seen xol sedd man nag da ngeen maa sas ndax yéen ñëpp su ngeen waxee ne maa ngi góorgóorlu ci lu baax kon man doyatuma kon kenn waratumaa gis sama tànk ma teg ko ci safaan ba su ma dees gor kenn ci yéen waruma fekk ci leen di ma yedd Abdou boo demee nga nuyu nu sa santal nu ko te xam ne ko njabootam gi gis nañ leen te dinañ leen xool bu baax a baax moom moomee nag yàlla na ko suñu borom yëkkati wéral ay cëram ña bëggoon ñëw ñëpp te mënuñoo ñëw ku mel ni bàcc caam lii ni lu seddu xolam la suñu borom moo ko téye ba mun a ñëw kon ngeen ñaanal ko mooy tax suñu borom may ko wér ak képp koo xam ne bokk nga te bëgg nga cee bokk te bëgg a bokk ak ñun bii tamit suñu borom téye say cër yàlla na suñu borom wéral la ba defal jàmm yéen ñëpp ba buñ koy def ku mën ak ku mënul ak noo mën a ñëwee yàlla na suñu defal mayo yooyu nga bëgg a ñëw ci bis bii yàlla def leen ngeen màgg yéen ñëpp ñi fi toog nii a sant bàyyi ma romam planga bin naasi malikin naasi ilahin naasi min zarril waswaasil xanaasil la si wasi sujóor ñu yàgg ko def uh, at mu jot yàgg ko def fekk ko ren di ñaan yàgg ko fekkee uh, di gërëm waa Tawfekh Production bi nga xam ne si ni ñoo def liggéey bu sell bu màgg ci màggal gi di Euh, ñaanal sëriñ bi sëriñ Seexuna Géey mi fi nekkal alxaaji sëriñ Géey yàlla suñu borom yàggal ko fi te may ko wér ak njabootuk alxaaji sëriñ Géey gépp euh, mu nekk bis boo xam ni wax dëgg yàlla euh, gis nañ taalibe yëpp soppe yëpp liggéey bi kenn ku nekk am ci taxawaay bu mag a mag a mag a mag ndax jëmmi sëriñ bi ak mbaaxam ak ak yaatoom ak fonk boo xam ne fonk na ko doomu aadama yi ci tund wi ndax boo gisee ndaw ñi nit mobilisé taxaw kenn ku nekk taxaw ni badar sama badar la loolu liggéeyu Serigne Cheikhouna Gueye la boo xam ni bu mu bu mu wutloo ci waajuram wu tedd wala alxaaji Serigne Gueye ah, di. siyaare ñëpp nag di ñaan bis bi ñu yàgg koo teewe ci barke borom badar ndax wax dëgg yàlla ku ne xam ne borom badar suñu borom fay na ko Cheikh Ahmed fay na ko ndax ku gis bis fay na ko Serigne Touba fay ko te lim ko fay mi ngi nii ndax fépp fu waaye nekk góor jigéen mag ndaw tey ba jaral na la lu ne kon ñi ngi ñaan yàlla suñu borom Serigne Cheikhouna Gueye mi fi nekkal alxaaji Serigne Gueye tey yàlla suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootuk alxaaji Serigne Gueye ak taalibe ak soppe yi ñëpp bu baax xol yëpp sedd ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax xëy ci waañ wi ba ñu xëy ci waañ li njëkk li njëkk liggéey mooy ah, fexe ah, fépp dañoo fépp foo xam ne si rek ah, paan war na fa jóge wala bool wala lu mu mën a doon fexe nañ ba mu ñëw ci waañ wi nga xam ni matt mekk loolu lépp. liggéey la boo xam ne si nii dañ ko liggéey lépp fexe ba lépp loo xam ne si nii lu baax la loo xam ne lay jagal bis bi rek fexe nañ mu ñëw ci waañ wi moo gis gis nga ko nii xale yi ñoom seen mobilisation gis ko nii andi ne lépp loo xam ne si nii day jagal bis bi rek fu mu mën a nekk fexe nañ ba jëgaane ko indi ko ci ba ci waañ wi ngir bis bi jag. bii waa daayiratu Tawfekh bu Touba Koki Mayib Diop la xam ni. mi ngi nii dëkk bi ngay seen moo xam ne ak mook Badar benn lañu euh, di mbokk ci di di di mbokki taalibe di lépp waaw euh, nga xam ni fonk guñ fonk Badar ak teg boo xam ne teg nañ ko Badar moo waral lii lépp. barke Serigne Touba ñun la waa daayira Touba Koki Diop may waaw ànd ak suñu daayira fédération fas yéene liggéey ci bis bi barke Seydina Muhammad te xam ne fii Badar la ñàkk jariñu jëf jël rek lu waaye jëf yaa ko moom bis bi am na fay dañuy ñaan moom mi am fay mu fayal ñu barke Seydina Mohamed am nañ kontaan te mbégte bu baax a baax nag ci bis bi liggéey rek moo ñu tax a jóg barke Serigne Touba di ñaanal seen Cheikhouna Gaye Badara yàlla na fi yàgg wér bilaahi fan bu baax fan bu gudd a gudd barke Serigne Touba ñu ngi ñëpp ñëpp barke Serigne Touba jërëjëf waaw Touba bu loolu weesoo it yéen ñaata année yéen a ngi ñëw fii di ànd ak gars yi ci liggéey bi ci ban xàmmee ba léegi ñu ngi ñëw ànd ak ñoom ci liggéey bi di ko def comme ni ñu ko bëggee di def suñu déguisement suñu t-shirt ñu ngi koy def daal booba léegi te avancement lañ ci gis daal di ñaan suñu borom gën ñu ko fekkeel ñu yàgg koo taxaw ci barke Serigne si lakal لك المن يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من لا تيمام الرسل قد جاء انه فلا خوف في الاسلام والكل قد لبس ثياب المجد والبل والمنى وفيك من الاقلام من الأداء ما دلنا من على أنك الليث لمن جاء يبكي منك نيلا وهدى متى يا بريدا لمن قالوا جل لكم ذو تجرد عذاب ذليل تقدر أبقي من إلهي صلاته عليك ما نبي بالمصطفى ترى توكلت على الله بمن لا عليه بما ديرا هي القلب قادما لأبي البيئة asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di nuyu suñu kilifa seexu naa di ñaan suñu boroom mu yàggal fi taxawaay bi di dëgëral ko di nuyu bépp taalibe boo xam ne teew na fi di siyaar ñëpp comme ni ngeen ko gisee rek image yaa ngi nii affaire yi lépp jaar na si yoon macha allah dara manqué wax dëgg yàlla teraanga yi dara manqué wul. comme ni ñu leen ko waxee woon léegi rek fii mooy kër Serigne Cheikhouna Gueye di xalifa borom Badar. fi nekk nii euh, fi ngeen gisee bâche bi nëpp ak décoration yi euh, fii la ñuy dalale gan yi comme ça xéwal yi yëpp dara bañ a manqué incha allah li ngeen gis nii lépp ci taxawaayu soxna ma Astou Gawane Gueye la mi ngi nii xale yaa ngi nii ci jàmbaar ci liggéey bi donc ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm wax dëgg yàlla bis bi moom chaque année rek day gën di neex di gën a di gën a di gën a xéwale donc ñu def lu du sant Serigne Touba bu baax di ñaan suñu borom may ñu fekke ko yu bëree bëri bëri di sant bépp boo xam ne teew na fi ak bépp boo xam ne ay dëkkandoo ak ay mbokk ak wëllëre wax dëgg yàlla kenn manqué wul bis bi moom sant nañ ci bu baax a baax a baax gërëm soxna yëpp gis nga leen dem ba léegi tooguñu ndeysaan di leen sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñi ngi sant euh, waa Badar yëpp euh, ñun nag ñun la waa Moumina Foot Moumina Events soxna Maast moo ñu fi moo ñu moo ñu jëloon moo ñu engagé woon pour ñu liggéeyal ko bis bi Euh, ñoo yoroon euh, lépp lu jëm ci wàllu bâche bi ak événementiel ñun ñoo yoroon événement bi wàllu lekk yi wàllu naan bi yu yëpp yëpp ñun ñoo ko yoroon dressage bi euh, yëpp waa Mumina Food ak waa Mumina Events ñoo ko ñoo ko ñoo ñoo ko yoroon. léegi nag ñi ngi sant ñëpp liggéey bi moom xawoon na metti tuuti parce que liggéeyu benn borom borom benn loxo moom day xaw a doy waar loolu la woon mais alhamdulilah ñi ngi sant yàlla bu baax génn nañ ci. xam ngeen ni Dakar ak Badar sori na mais terewul dañoo déplacé wu ak suñu équipe ñëw ba fii euh, lijjanti euh, événement bi ba tey macha allah. am nañ si lu kawe sunu sunu njort alayhi salli wa sallim daiman abadan wa man qafahu li yawmi dini yallahum alayhi salli wa sallim daiman abadan wa man qafahu li yawmi dini yallahum mawlaahu nee na bàyyi na ko ak yàlla ak sëriñ Touba nee na mu di ko yokk ba faw nee na loolu rek moo waral tànkam yi tey nee na danoo doon mbokk nee na bis bi ñoom rek ñoo ko bokk kenn ku nekk sañ nga toog fa nga toog waaye nee na makkaanam mii nee na moom dey xolam bi sedd na ci lool nee na yàlla na yàgg. kii li mu def mooy dëgg. bokk moom baay séddoo ko mu ànd ak ay bokkam ñëw di ko siyaare. siyaare dafa am nu mu tudd delloo ñaan ñi siyaare dafa am lu ko war sëñ Moussa Ba. sëñ Moussa Ba imaam la doomi Alaaji Sëriñ Gueye la. sëñ Moussa Ba du ma du du du gàkk du tâche. damay dund. kon ñii sëñ Moussa li jaar wax dégg nga ko jarul jottali defal nga ko lu ko kenn defalul cëral nga ko fonk nga ko faale nga ko képp kuy doomu alaaj sëriñ boo duggee ci dëkk bi gis dal bii xam ni dal bi yaatu na taaru na rafet na à l'image de imam de professeur et de maître Moustapha et de Serigne Moustapha kon tey ñii tàllal leen seen loxo mu defal leen ñaan. lak mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp gi ngeen topp suñuy programme ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii nga xam ni dëkk bu spécial la muy Badar Gueye li bu ndax ñu ñëw fi nag tax ñu toog ak jëmm ji ngeen di seet ci image yi muy koo xam ne la li ko maam yi bàyyee Euh, mi ngi ci góor góor man fexe na ba li ko maam yi bàyyee bàyyiwu ko mu ràpp bàyyiwu ko mu raaf bàyyiwu ko mu réer muy sëriñ Moustapha Guèye imam ñu fekk su ko fii ci këram fas ne seq ak moom tuuti rek ay laaj ak tontu dëkk bii di Badar ak euh, alaaj sëriñ Guèye raay mu sedd ak lii yellay ñuy def bis bi buñ gàmmoo ba bis bi des euh, loolu lañ fas yéene waxtaanee sëñ bi ginnaaw buñ la jaajëfale ñu bàyyi la nga nuyoog suñu mbokku internet yi ñuy topp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéenay topp site yi te di jaajëfal ñi nga xam ni ñu indi seen yi nga xam ni moom la kamera ngir bokk ak ñun bis bi ak yow mi nga xamante ni eh, Ablaye yaa taxaw lii ñu ngi leen di sant bu baax a baax li nga xam ni nag moom nga laaj day laaj bu yaatu boo xam ne xëy na mën na mën naa bañ a xaj ci diggante su gàtt waaye dinañ ci tënkal nit ñi lu leen amal njariñ li ci njëkk mooy lan mooy badar lan mooy badar badar nag xam naa kuy ab jullit suñu ko waxee rek dina am sa xel lu mu dem la sa xel di dem mooy bis boobu nga xam ni ca la dëgg tàggook caaxaan bis boobu nga xam ni ci la suñ boroom wane jullit ñi ni bu ngeen dëggoo ànd seen pas-pas bokk euh, lu ngeen bëgg lu ngeen song mën koo daan kon loola mooy badar badar jooju nag ci la badar ji tox soxi ko sëriñ Mayib géy turam dëgg-dëgg di Cheikh Mouhamed Habib Guèye mooy ki nga xam ni moo sañc badar badar gii nag bi mu ko sancee ba noppi daf ko tuddee Uqba Daar Uqba Daar nag mooy kër gu mug mujj loolu nag foo ko déggee nga xam ni am na kon kër gu njëkk moom dafa doon nitug yàlla koo xam ni suñu borom joxoon na ko cër waaye liggéeyloo ko ci alxuraan ak yar doomu aadama yi mu doon def génn fu mu sanc ba daara ji bëgg soppiku ñeneen rax leen ñu mu génne mu génn ci eh, génn ca barab ba waaye barab bu mu sànci it bata la ko daan tuddee eh, xam naa ci li ñu xam muy lu leer lu mu néew néew am na ñeent ba juróom yoo xam ni ay pàkk la yu mu tudde woon badar eh, ba bii mujj ci mu tuddee ko ba daar moom nag suñ borom joxoon na ko cër cër yi yu bari la cërub xam-xam ndax la xamoon ci jamono booba muy di doomi soxna te mokk alxuraan suñu borom defaloon nag ko bokkoon na ci ñi daan jàngil alxuraan waaye la ci topp mooy weesu woon na loolu ba bokk ci ñi nga xam ni dañ doon tudde ay tafsir tafsir nag ca jamono boobu mooy koo xam ni egg na ci mën a tekki alxuraan man koo leeral ba nit ñi xam ko. gis nañ ni ñëw fi moom day mel ni boo fi ñëwee sa xel day dellu ci xare ba badar ndax coono ñëw gi. ci wàllu courant yoon loolu da ngeen ci doxut wala lan mooy gàllankoor bi. waaw euh, xam nga nag mm, ñu de ci réew mi lañ bokk euh, sunu warugarit am na luñ cay jéem sunu diggante ak réew mi waaye ñi nga xam ni ñoo yor réew mi ñu ngi leen di gën a tàllal loxo ci ñu gën a say saytu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk ñoo gën a sori gis naa ni sax am na jéego yu ñu ci dox. Euh, ci dëkk yu bari yu ñu wër yoo xam ni ñu ngi commencé di am am courant waaye yoon moom jafe na fi lool euh, diggante fii ma toog nii ak euh, autoroute bi matul 30 kilomètres te bu maanaam tubaatul ak fii ma toog matul 30 kilomètres yoonu Mbaba garage ak bambay wala Baba garage tubaatul ay diggante yu gàtt la yoo xam ne buñ ko defaroon. lu muy li muy lijjanti ci fii kenn xamul nu mu toll. diggante fii ak Pekes euh, ci xam naa fukki kilomètre ci lay war a toll waaye amut yoonu yoonu piste waaye yi may wax moom dafa am ay piste yoo xam ni euh, maanaam dafa dafa jàppandi ci ñi ñi ko yor ñu taxaw ci ñu taxaw ci diggante bii Baba Bambey Baba Garage Ngaay mooy lëkkale kawlax ak Ndar mu yoon wu am solo yoon bu fi yàggit nag na diggante tubaatul ak Kër Samba Kane jëw Baba Garage moo jokkale euh, tubaatul ak tubaa ndax mooy mooy mooy génne si waat Kër Ngànn ay diggante yu gàttale yoo xam ne bu ñu ko defaroon waxuma la waa waa fii rek waaye dafay jariñ lool lool lool màggalu xam nga ni yoon yi xat na lool bokkoon na ci li mënoon a dimbali nit ñi bu baax a baax a baax ndax yoon wi Daaru Musti lay génne ji euh, waaye nag ñi fi nekk dañuy ay nit yu yu jox cër li fi nekk di leen bàyyi xel waaye nag bëggoon ñu gën gën ñoo bàyyi xel eh, ci ni yoon yi ñu dimbali ndax ay jàmbaar a ngi fi yoo xam ni eh, am na fi ñoo xam ne génnuñu génnuñu barab yi ñu nekk nii demuñu fenn eh, te ci wàllu économie li ñuy doxal lu bare bari la bokk na ci nag seeni gàllankoor mooy yoon yooyu ñàkk gum fi ñàkk am courant nag moom xam nga ni ci jamono bi ñu toll dafa bokk ci yi doxal industrie te tumurank na fi lool lool lool waaw tey nag man na mën naa am nag yaakaar nañ ñu ngi koy ñu ngi tàllal loxo ci képp koo xamante ni mën nga ci dara nga jàppale ñu ci loolu ngir day tax ba gën a yombal nekkin bi ci barab yi ñu nekk nii. jërëjëf mbokk yi ñu jaajëfal leen bu baax a baax gis ngeen euh, spécial ñamal loxo bi ñu xam ni moom la lañ seqoon ak sëñ Moustapha muy lu yaatu nag lu génnee ci lu tuuti lu génne ci lu bari. ndax jàpp naa ni jataay bi ni mu demee mën nañ koo gën a yaatal sax waaye ngir présenté leen fi jataay bi nekk ak li yil lay woote bi ak ñi ko doon woote ñan la loolu moo nekkoon jataay Sëñ Moussa ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci taxawaay bu am solo bi nga xam ni yaa ngi koy taxawal ci diini ji waaye yaa ngi koy sagal li nga xam moom mooy kër gi di sant ñëpp di gërëm ñëpp nag leen jox dig daj insha allahu rabbi dara jeexu fi laaxu fi saab yaa ngi nii ceeb yaa ngi nii dara jeexu fi ñu ngi ñaan nag ci barke Serigne Alaaji Serigne Gueye barke Serigne Touba yàlla comme ni fi daane ay nag bi taslimi ya man alayka salaama man lawal amru kulluhu kama bi kali xaalal alaykum salaatuma salaatin fiikum min alwaasi

عجائبه في البر والبر لمدى بكونك مخدومي ولومي وإنفالي وسري زكية لمن بك لي خادم أنا بما بالله أني موت وزفايا لي من غيره لموسر ولا كلي لساني وأقلامي وقلبي وجثتي لمول الكريم في جل من مثلي لنا أرسل المختار عبدا مقدما خليلا قديما فائقا جملة التمليك لو دار أمدائي قديما مخاطبا وللقاد في أملاكه الأرض لك المعجزات القرب يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع السبيل لقد كنت سفارا صبورا ونازلا عليك سلام الله يا ماهي الجليل لك المعجزات الخارقات التي بها أتى الحمد من خير بلا جملة رسل لك ذلك قد زال بذاق البداوة كما التقى بدر خام لمن أنزل الآية التي قلت لي بها كتابا عزيزا بينا العقل بالفصل لساني والأوثان وعبد الملك وتردياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجمالي وكلي بلا لا أنت الخليل لي ويا خير ذهبي وثرواك لم يخلق باطل فما كلي لا أنت الخليل لي ويا خير ذهبي وثرواك لم يخلق باطل فما كلي لا أنت الخليل لي غير ذاب وثرواك لم يكن مباب أما كل jigéen ñu booyal naanu bay bandinde maam jigéen ñu booyal naanu bay bandinde waaw waaw mag jigéen ñu booyal naanu bay bay sama maam jaar jigéen ñu booyal naanu bay bay tàggoog màggal maam jaara yàlla na nga tàggoog bàkkaar ba set wecc barke borom Tuubaa soxna su mag sangoog jug leen màggal ko lépp mooma ñu booyal naanu borom poroxaan yaa ma jël naa ndam ñu booyal naanu jaara ma maam jaara jigéen ñu booyal naan se mu taxaane naan se liggéey bi naan jigéen ñu booyal naan maam soxna jaara maam sox mu taxa mbàkke jigéen ñu booyal naan se mu taxaane naan bay bandin li jigéen booyal naan se mu sunu liggéey bi na ji booyal maam soxna jaar maam mi Muntaxa Mbàkke jigéen ñi booyal naanu Seex Muntaxa nee na sunu liggéey bi na jigéen ñi booyal naanu amoo maram maam amoo maram Muntaxa nee na bandin ne jaara maam jërëjëfati maam jaara maam jaara jërëjëfati maam jaara ko waral maam Mariama jaara day karama karama maam jaara maam jaara amoo moroom sa am moroom sa am moroom yaa ko waral sa doom rëy karaama bu sabal jaara pa maam jaara jërëjëfati maam jaara am maqaama jërëjëfati maam jaara ko faral keroog ma jaara yusuf xiyaama jaara maam jaara ko am maqaama am maqaama maqaama yaa ko waral keroog